salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen baalu xaq naan borom bi subhaanahu wa taala mu boo leen jéggal ñu dellu siwaat ci durusul xajj mooy ay jàngat ci aju màkka gannaaw ba ñu jàngee wàll wi e, dox ci wàllu kaaba gi wër kaaba geeg xajarul aswad ruknul yamani maqaama ibrahim ujaaj bi bu paree foofu nag bu noppee foofu eh, bu nokk bu noppee ci tawaaf bi day génn pour dem defi safa ak marwa safa ak marwa ñaari palaas yoo xam ne ñu ngi foofu ci kaaba gi bu yeggee mu jublu penku bu defee mu dal di jàng aaya bii mooy bëgg a jàng وإن الصفا والمروة من شعائر الله بفي آية بيم آية بفيم يم موي ولكي موي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بالماي آية بي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بكم من يبان بكم من يقول درجة حجم وعبات يوي باكاد القرآن يؤية بابا من بلاي جانه إن شاء الله ورفع مدال دي بجيجي فوف مدال دي yëkkati loxom ñaan sant yàlla ñaan ñaan lu mu mën a ñaan rek mu ñaan ko bu ko defee mu daal di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye sant yàlla daal di wax allahu akbar daal di wax la ilaha illa allah waxdahu jaza wacdahu wa nasara abdahu wa hazama al axzaaba waxdahu ولا شيتك لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ودفعي مبامو لولو نياري نتيون لقوي بامو نتيون لقوي بامو وحجواجة ويبجانغو نيان يي تمت دردو كو تفك waaw maanaam ñaan yi baax na foo dégg rek ci pratique boo xam ne dañ ne boo yeggee place sàngam da nga jàng ñàngamu ñaan ñaan moom fu mu placé woo rek du caageen ne ñaan googu boo ko bàyyee jëf jooju day yàqu déedéet ci da di ñaan googu mooy sunna maanaam moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaane mooy ñaan gi ñu gën a bëgg nag ci ñaan yi mooy bi gën a baax boo ko mënul it mu jàng leneen rek wala mu noppi loola bu ko bàyyee du ci yàq dara moo tax yii ñu wax fii bum ci bàyyi du yàq ajam li yàq ajam mooy mooy fee yi mu war a def ay wër kaaba geeg ay dox safa maru ay dem arafat ak yooyu déplacement yooyu bu mu ci bàyyi aj ji day manqué mais ñaan yi moom bu ko mënul rek mu ñaan li mu man bu mënul dara nag na ñaan li bi mu dégg ñaan yàlla ci làkk ci langam yàlla yàlla moom dégg na kàddu yëpp loolu mooy darsi bi tey قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته